Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku internet yi nga xamante ne yéen ñuy suivre à travers Salam Vision dañu amaat mbégte tey dellusiwaat ci suñu émission bi nga xamante dootu leen ko présenté mooy les coulisses politiques bu ñu ne les coulisses politiques nag ko xam-xam ni daanaka mooy ruq yeeg ruqaat yi nga xamante ne ci biir li nga xamante mooy jotaayu politique bi nga xam ne moo xew ci suñu biir réew mi rawatina jamono bi ñu toll fi nga xam ne li la ñu dëgmal muy élection locale yi nga xamante ni macha allah rabbi askan wee ko moom li tax ñu def see COPITAG mooy askan wi lañ fi dajale bëgg a waxtaanee waat ak ñoom kenn ku ci ne ci gox bi mu nekk ak lañ fay fasante ko ak lañ fay jànkonte ci nga xam ne mooy doon ay coona tey nag ñaar ñuy fas yéene dalal bokk benn commune muy commune bi nga xam ne mooy commune Pikine Nord ki nga xamante ne moo doon njëgli di euh, monsieur Amadou Diarra doon maire bi nga xam ne mooy maire bi nekkoon ci commune bi waaye tey ñi fi dalal kenn kii ci sama ndeyjoor dinañ ko bàyyi mu nuyoo présenté boppam kii ci sama càmmoñ tam ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté boppam ndax kenn ku ci ne ak dox bi muy dox waaye bu ñu xoolee léppoo lépp lépp day daal di méngoo ci benn anam ni ñuy def rek mooy dañuy gëstu suñu ndeyjoor daal di dalal ki nga xamante nii nuyu ki nga xam ne mooy Cheikh Chérif Assane bàyyi ko mu présenté sax boppam mooy dàq wax itam fi mu bokk ak ca nag lan la fa yor ñu daal di wéyal ko kon Cheikh bisimilah. Euh, jërëjëf Sakho. Hmm. ñu ngi nuyu euh, euh, salaam. vision euh, di nuyu askanu Pikine département parce que tey ñi ngi fenn ci biir commune yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir euh, département de Pikine euh, kon ñu ngi nuyu ñëpp di wax ni maa ngi tudd Assane Dioum nekk ci benn mouvement bu ñuy wax dëggu ànd liggéey muy dal mhm. Moussa Niang jiite mouvement bi mhm. may responsable mouvement bi fii ci département de Pikine bokk ci benn coalition bu ñuy wax ànd liggéey suñu gox euh, Mapenda Faye nekk euh, ki nga xamante ni mooy tête de bi nga xamante ni hmm. euh, moo nekk ci moo jiite tey coalition bi nga xamante ni moom lañu àndal pour fas yéene jëm ci hmm. lii di local yi ñu jëm mu doon lu am solo dégg ngeen ko ni moom xamante présenté woo tam wax itam fi nga xamante ni fa la bokk ak ndombay tàngal nga xamante ne suñu borom jox na ko fa waaye ci suñu càmmoñ itam ñu daje koo xamante ni Ousseynou Ndiaye lañ ko gën a xamee Ousseynou ñu bàyyi la nga nuyoo présenté wu wax itam yow tamit ci mouvement yoo xamante ni yaa ngi ko dirigé ci biir gox bi waaw salaamaaleykum mhm. maa ngi nuyu sama naataangoo bi mhm. moo fi daje muy Assane Diouf mhm. di nuyu waa Salam Vision di nuyu Pikinois yi waaw man rek Ousseynou Ndiaye ñu gën ma ñu may tàkkante la Weuz. waaw ma nekkoon euh, ndaw boo xam ni Pikine Nord rek ma ñor. ma jiite woon ci euh, benn mouvement boobu bu ñuy wax mouvement action citoyen waaw euh, nekkoon tamit boo xam ne daal Pikine daal ma ñor. Mm-hmm. du nuyu ñëpp. waaw du nuyu ñëpp dëgg yàlla daal maa ngi nuyu ñëpp. macha allah. su ko defee rek kon mbokk internet yi dégg ngeen ko ni nga xam ne présenté woon nañ ko mu doon lu am solo ni ñu def rek mooy daan daal di wéyal waxtaan wi xam ne rek wax dëgg yàlla léppi léppi rek lu jëmee suñu askan wi kanam rawatina suñu gox bi nga xam ne moom la ñu bokk saa su ne Pikine Nord koy ko ne na ko fi ma bëggoon ñu tàmbalee waxtaan bi mooy fan yi dañu gis benn audio boo xam ne audio fuité lañ ko mën a wax je sais pas boo xamante ni audio bi dafay dafay dafay révélé ay ki nga xam ne mooy actuel maire bi fi nekkoon di maitre monsieur Amadou Diarra di am ay kàddu yu mu ci génne di wax ni ku bëgg soxla sama bilan na ñëw ñu wan ko suñu bilan. gis nga ñuy wax bilan kenn ku ko ci laaj boo ñëwee ma wax la lan laa def bilan ci moom groupe baa ngi nii ku ñëw ne nee ma diw ak diw ak wala kenn ñëw yëkkati loo ne man ma léegi léegi moom ci wala ci biir këram wala ci papaam wala ci yaayam. ñuy laaj bilan nañ ñëw léegi léegi kenn ku nekk na ñëw ne man waxal ci man maa ngi nii sa bilan bokk ma ci ma waxoon léegi léegi tout suite. ci biir këram wala biir koñ bi mu dëkk wala moom wala papaam wala yaayam wala mbokkam bu ko jege. kaddu yi mu ko waxee amaana am na ñu mu neex am na ñu mu neexul mais ci déggin am na ñoo xamante ne daal dañu critiquer kàddu yi tey ji am na ñooy jàngatee euh, kaddu yooyu nga xam ne dégg nga ko ci euh, Amadou Diarra. bon waaw ci kaddu sax moom mooy maire bi. effectivement moo nekkoon meer bi mooy mm-hmm. maire bi actuellement. tout à bi nga xamante ni tey moo fi nekk. Mm-hmm. jiite commune Pikine Nord. Mm-hmm. suñu demee ba kenn ci askanam. ci citoyen wu daje ak moom ci benn groupe WhatsApp. ñu koy laaj lan mooy sa bilan. mu ni képp ku bëgg a xam sama bilan. boo génnee ci groupe bi taxaw dinaa la wax lan laa def ci yow ci sama bilan hmm. su ma ko deful ci yow def naa ko ci sa yaay hmm. wala sa papa wala sa dëkkandoo wala sa mag hmm. wax ba mënu ma ko jàngatee nenn lu dul ni ko ñëpp jàngatee ay kàddu yoo xamante ni xaaruñu ko woon ci kilifa xaaruñu ko woon ci maire bi nga xam ni dañ la dénk nga xam ni yow moment bii li la waroon rek mooy génn sa bilan teg ci sa bilan la askan bi di sukkandiku fal la reconduire la wala ñu sukkandiku ci duñ la tegaat tout à fait mais boo demee ba ñu lay laaj nag lan mooy sa bilan mhm. nga leen di mën naa ko tuddee saaga <laughs> ah naa ko ci sa ci seen yaay wala seen papa mhm. vraiment du kàddu bu kenn rafet lu jàngat boobu laa ci def mhm. kàddu bu ruslu la ah, te vraiment ah, maa koy déglu bëgg na ko bëgg na ko rafetalaat ah mais mais ba léegi mënu ko rafetal parce que même kàddu bi lay mën a waxaat parce que mënoo ko tuddee leneen lu dul saaga la. Mm-hmm. Euh, vraiment loolu laa mën a wax ci euh, kàddu yooyu nga xamante ni. Euh, macha allah maire Pikine Nord yëkkati ko ci kàddoom du woon yi ñuy xaar ci kilifa. Mm-hmm. vraiment macha allah. yow ban jàngat nga am ci dégg déggin nga am ci kàddu yooyu xam ne dégg ko ci monsieur le maire Amadou le maire Amadou Diarra. Mm-hmm. loolu mu wax. man man daal wax dëgg yàlla lu ñu doon xaar ci waroon ñu ko woon xaar ci war. fekkoon dañ koy xaar si moom sax waruñu ko woon gis. Mhm. waxantuma la ban ko xaarul ci moom. sama naataangoo bi rek wax ju rafet la wax. Mhm. waaye man dama jàpp ni moom lu mu def saaga la saaga population bi. Mhm. parce que li mu wax wax bu rafet. wax ju tegg nii ndax kilifa da ngay def fu kilifa dangay ngay wax kilifa. ndax yow bilan moom fu mu toll nii moom warul campagne warul wax ci lenn. dafa war a indi bilan loolu moo ko waroon. war a fexe génn lépp loo xam ne liggéey na ko mu tegal ñu ko ci caaba ñun loolu lañ doon xaar ci moom waaye jaraa vraiment neexul ba neexul waaye daf ñoo saaga saaga sunu parents yi dafa am loo xam ne dafa man daal rafetlu ma ko ndax tamit wax dëgg yàlla Pikine Nord jaraa mii di topp ci gannaawam nii rek di daw muy def lu ñuy def lu ko neex jaraa gënuñu judd gënul jàng suñu leader yi ñi ñi muy xëccoo amul kum ci gën a jàng amul kum ci gën a ëpp niveau kon tey jii ñun war nañ mën a am gëm-gëm boo xam ne jaraa dóor ñu wala jaraa wax ñu wax ju teg méngawul ak li mu bëgg ñu ji mais danoo jëm ay élection def nañu lu ñu naqari mais nan ko maam du xeex du xuloo nañu dugg ci urne yi ji fexe nu ko fi jëlee loolu mooy wax ji ndax wax ji mu wax la wax ju tegg noonu mm. wax ji man wax dëgg yàlla man gis naa sax mag ñu mag ñu mucc wax ba jooy daan ne kii daf ñoo yab ndax lii lii lii dafa am man man dafa am loo xam dafay signe la bu wane quoi. mais est-ce que du déggin itam ñoo wute itam fi mu toll non déggin benn déggin hmm. lépp benn gis-gis bi lañu wax wala seen ndey yi boo nee seen ndey yi rek. Hmm. donc loolu dootul respect. Hmm. dootul respect lii dafa am benn signe bu grave joxe rek lii mu wax nii. ça veut dire que ni liggéeyu mbedd mi taluñu ko quoi dafa mel ni ñàkk yi ci biir kër yi la nekk. ndax moom bu fekkee intervention bi ci biir kër yi la koy la koy def yi kon ça veut dire ni euh, gox bu pauvre nii gox bu ëpp xaalis ci gox yi moo nekk commune Pikine Nord bi li muy li génn si recette amul ci benn commune bu muy gën si recette kon ça veut ça veut dire que ni lii li lay war ni kon Jara fàtte na euh, fàtte na sunu tali bu mag bi nga xam ni lu bari moo koy génne fàtte na lu bari yoo xam ni war nañ ko fee def da ko fee fàtt da ko fàtte ba tax muy jubal si kon kon ça veut dire que ñàkk gi moo fi bari loolu daal laa amoon loo xam ni <laughs> naa ko wax ci côté. macha allah am na solo am na solo man dama jàpp ne nag ci gis xëy na dégg ni wala fi mu ne waaye mais d' après ni ni ko population bi yëpp jàppee li li li mag ñi wax rek lépp ci nit li ñu wax jàpp nañ ni kon mooy dëgg kon li ñëpp ànd ci lañu ci loolu la ñu mën a sukkandiku mais Assane tey jii ak fi nga xamante ni fa nga fa fa fa fa nga bokk tey jii wax dëgg yàlla et puis wax nga sànq seen représentativité ni ni mu ni mu demee tam ci ci biir gox bi mais tey jii ak leader bi nga xam ne moom moom moom moom mooy leaderu euh, dëggu coalition dëggu ah dëggu donc ànd liggéeyal ànd liggéeyal suñu ko voilà mooy coalition mooy dëggu mooy dëggu ànd liggéey ok dëggu ànd liggéey daal macha allah mu doon lu am solo dal boobu noonu tey jii fi mu toll ak élection locale yi nekk suñu kanam naka ngeen ko waajee ak naka ngeen ci dara demee gannaaw bu fekkente ni yàlla dogal nañ defe naa ni comme ak coalition bi ngeen demee tey jii di si bali dinañ ko hmm. waaw waaw xam nga tey Sam euh, maa ngi di nuyu sama naataango bi toll nii mhm. ñu koy wax Weuss muy vraiment nit ku am engagement. ci commune bi nga xamante ni moom lañ bokk dëkk. Mm-hmm. vraiment di la masaw coono ci li ngay daj ci biir commune bi. macha allah ah. mm-hmm. pour tontu ci euh, sa question bi. Mm-hmm. mooy mouvement dal bi nga xamante ni man ci laa bokk. muy mouvement boo xamante ni euh, politique développement lay def. yëngu ci développement. Euh, yàlla dogal bi local yi ñëwee. mouvement bi ci boppam. kilifa yi dañu daje toog waxtaan li ñu waxtaan mooy ci local la ñu jëm du présidentiel local doomu gox bi ñoom ñooy tànn ki nga xamante ni bëgg nañu jiite leen kooku nag yow ñu dëkk ci biir gox bi rek yaa mën a bokk ca ngay tànn ka leen jiite effectivement moo tax ñu bàyyi bépp responsable boo xam ne foo mënti dëkk muy ci région yi mm-hmm. euh, yàggul dara dem naa Ndar mm-hmm. euh, ñu doon investir yi suñu benn membre boo xam ne ci mouvement dal bi la nekk mm-hmm. euh, noonu lañ ko defee ci ay yeneen euh, raison ba ci fii région de Dakar ci commune bu bari mais li ñu leen wax mooy bépp responsable ci commune boo mënti nekk demal xool list ba nga ci wóolu coalition ba nga ci wóolu nga dugg ànd ak ñoom ci lañ defee ñun soit ci coalition bi nga xam ni moom la ñuy wax ànd liggéeyal sunu gox tama ni douze partis ay mouvement ñoom ñoo ko ñoo ko nag euh, jiital ci nag ñu tànnee ba pare nag dañoo tànnaat suñu biir jiital ci ku ñuy wax euh, monsieur Mapenda Faye pour que mu mën ñu jiital suñu liste boobu. Mm-hmm. parce que am nañ yaakaar ci moom am nañ kóolute ci moom. Mm-hmm. parce que dañoo toll foo xamante ni dañu ni ab dëkk boo ko bëggee doxal muy commune muy lu mënti doon bul jaay bul jaay leader mais jaayal équipe. Mm-hmm. mais waneel équipe. parce que feeg ñi ngi jàpp ni njiit benn nit bi rek la. Euh, te bari na fi ñoo xamante ni dañuy ànd ak nit mais lu mu wax rek da nga naan yaaram kàlla da ngay fi tasu mel ni moom rek moo moom moo am xam-xam moom rek moo am xel mu rafet mm. mais ñun ak suñu coalition bi nga xam ne def nañ ko mm. euh, vraiment am ci ay responsable ci nekk yoo xam ne mën naa ci cité mm. mel ni Cheikhou Diène nekk ci benn benn benn organisation ñu mandaté ko ñu dugal seen caution 15 millions pour war a dem ci ay élection moom waroon na ñëw fii Pikine commune Pikine Nord pour taxawal candidature am mais bi ñu toogee waxtaan ci coalition bi mais daa mujj jëlaat yooyu yëpp yëkkati ko ñëw tegaat ko ci table bi nañ leen àndandoo ak coalition bi vraiment coalition bu yaakaarul la pour mën a suqali bu ñu dénkee suba commune Pikine Nord ñu mën koo yóbbu fi nga xamante ni vraiment commune bi day doon commune boo xamante ni référence lay doon ci commune yëpp vraiment loolu moo ñu gën a te ñu dugg ci biir coalition bi vraiment di ci euh, di ci liggéey liggéey bu am solo nag mooy vraiment ñu ni euh, coalition ànd liggéey suñu gox jox nañ ko commune bu boobaa dina méngoog turam mooy ànd liggéey suñu gox ci loolu la ñu invité ñëpp vraiment yaakaar naa coalition bi euh, ci loolu la juddoo ci loolu la taxawee pour mu doon lu am solo wax nga ko léegi mais tey jii ak ak ak ak euh, ki nga xam ne leader bi nga xam ne tey jii yàlla dogal na ngeen tànn ko te am ci moom yaakaar je le connais de de loin de mais xam naa nit la ku am ful la ku am dignité la ku am yar la tamit macha allah rabi ndax euh, am na luñ ci xam ci moom tey jii moom ak coalition bi tey jii ban programme ngeen jël. waajalee ko li nga xam ne moom moom moom moom bu su yàlla dogalee ngeen ngeen ngeen am ndam ci li nga xam ne moom la ñu dëgmal suñu kanam moom ngeen war a taxawoo tey jii askanu Pikine Nord parce que Pikine Nord sonn nañu te am na lu ma ci xam bu ma waa ji am nañu ci waxtaan incha allah waaw euh, tey comme loolu ñuy wax programme boobu euh, dañ koy faral di wax toujours euh, dañu programme bi li ci jiitu suñu programme mooy d'abord ñu waxtaan ak askanu Pikine Nord ba ñu xam ñoom ñoom ñooy kan. xam ñoom ci seen bopp boo leen bëggee liggéeyal ñoom ban taxawaay la ñuy am mooy xippiloo leen seeni i bët ñu xam ne li fi nekk bu ñu bëggee defar seen commune il faut ñu jëlee ko fi. muy euh, maire bi fi nekk ak équipe am parce que gis nañu nit bu fekkee dañu la jox cinq ans. nga def def ñu xam ni defoo dara. élection ñëw ñu dindi la. dindiwaat keneen. yàlla dogal nga ñëwaat ñu tënkaat la cinq ans. dolli la yeneen deux ans. muy 12 ans ci biir 12 yooyu amul dara loo war a mën a teg sa loxo ci commune bi lii maa ko hmm. lu dul baat boobu nga ma laaj sànq muy euh, wax jooju waxoon muy wax ju hmm. ñun nag suñu programme bu ñu ñëwee hmm. euh, du yàgg dara incha allah balaa ñooy euh, sori di dugg ci campagne dinañu début campagne incha allah dinañu indi suñu programme exposé ko invité leen yéen presque bi yëpp ak say naataango vraiment teg ko ñëpp ñëw. gisandoo ak ñun gis ni lu mooy suñu programme nga xam ne lu ñuy toog nga am loo xamante ni moo fi amoon nit ñëw toog di expliquer sama programme bi ne lii laa bëgg a def lii laa bëgg a def vraiment ñun ñu bëgg a ñëw defee ko ci beneen facette mooy woo askan bi nga xamante ni bëgg nañ leen a jiite tegal leen li ñu leen yéene teg ko ci table ñu waxtaane fii lañ leen bëgg a yóbbu fii lañ bëgg du ñàkk nag ñu wax ci tuuti mooy ci côté même tey euh, boo xoolee adduna sax la ñuy wax moo toll foofu mooy ñàkk gi bari na. mooy coono bari na. rawatina ci suñu réew yi nga xam ne ay sous-développé la. parce que foofu laa doon bëgg a jëm ndax xiif gi dafa métti nit askan wi sonn. waaw voilà lampoñ foofu foofu a wax. Mhm. tey nga gis nit day faju sax day feebar sax am problème mu faju parce que amul ay moyens. Mhm. mais commune am na loo xamante ni dañuy wax naan ay. lii du compétence su maire yi bokk ci compétence transféré yi ah mhm. dafa am yoo xam ne tamit commune moo war a jóg uti ko pour mënal ko ay askanam benn tey da ngay gis ku dem bitim réew dangay ngay dégg ñu naan ku feebar da ngay faju te doo fay dara mais da ngay fay yow doo génn ci sa poos mm-hmm. mais sa sa sa réew mm-hmm. ñoom ñooy fay contribution ñoom ñooy fay mm-hmm. parce que boo ñëwee amoo dara dugg ci hôpital yi bitim réew nga faju ba pare mais yoroo dara dañ naan la signé ibi la benn registre nga signé mais sa état moo koy fay tout à mais tey loolu xalaat boobu ñun am nañu ko mooy fexe ba suñu population bi yeewoo ci biir commune Pikine Nord tey mu wóor yow fii la dëkk quartier sangam fa lay amee domicile ci chef de quartier sangam. Mm-hmm. mais Ousseynou boobu tey yàlla tere bu ko dara dalee. mais buy ñëw tey ci ci ci ci district bi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bi mais indil luy mandarga ni yow ci biir commune bi nga dëkk. soo ko indee bu boobaa mais dañ lay jël ci registre bi comme noonu faj la ba nga wér nga dem mais loolu après day ñëw bu dajee ba toll benn benn benn niveau bi dañ koy jël indi ko ci mairie bi. Mm-hmm. mairie bi mooy jël en charge pour loolu parce que loolu yéene la. ci programme yi nga xamante ni ñun am nañ ko pour suba ñu bëgg a yóbbu foofu Pikine Nord ak ku fi dëkk mën di faju te doo sonn mm-hmm. yeneen ak yeneen muy ci njàng bi muy ci ci lépp mm-hmm. en tout cas doon na programme boo xam bëgguñu toog fii tey di wax macha allah am na ci loo xam ne incha allah mm-hmm. dinañ leen invité yéen ñëpp ngeen ñëw macha allah dinañ leen invité yéen ñëpp ak euh, télévision yi yëpp incha allah ñu ñëw vraiment teg suñu programme wax ni fii la ñu bëgg a yóbbu commune bi boo leen joxe. fii lañ leen bëgg macha allah Assane am na solo am na solo am na solo ma rebondir léegi ci yow parce que am na foo laal léegi te xasan la trop te dinaa fa duggaat sama baaraam fi mu mais Ouzin li ma bëgg a laaj mooy Ouzin yow dañ la xam ci mouvement action citoyenne ñu gis la man ci ci ci jamonoy mbas mi gis naa la nga def fi ñaari yoon ay sorties yu am solo yoo xamante ni ànd ak sa mbooloo mi nga àndal jël say xéewal mu néew mu bëri dem fexe ba jël ci say masque jël say gel mobiliser mobilisation bi nga defoon ak sensibilisation bi xam ne ko doon def ci biir gox bi laaj naa la nga ne ma kenn nekkul woon sa ginnaaw mais Assane léegi loolu tam bëggoon naa ngeen li ma ci tuuti ak tey jii nii tey yow ban taxawaay nga am ak ban jàngat nga am tey ci élection locale yi nga xam ne mu ngi ñëw te gisuñu Assane fu mu far Ousin fu mu far Ousin foo ñàkk moom féete non yàlla def na ni mhm. am na fu ma faroon mhm. foo faroon am na fu ma faroon waaw da wax ci kaw ñu dégg la ko parce que am na fu ma faroon voilà waaye rek yàlla def ni lu bari jaxasoo bu mhm. dara jaxasoo rek da ngay dellu gannaaw taxawaat taxawaat boobu ma taxaw rek tamit wax dëgg yàlla yoon bi ma nekkoon euh, wàccu ma ci dara mhm. tey la ma commune bi gën a ñor tey la tey la ma commune gën a soxal tey la ma doon def tey lay gën a maanaam su ma yoboon ni semaine bi passée yëpp damaa maa ngi def ay affaire yu am solo di ko def ci biir commune bi mhm. maa ngi def sensibilisation maa ngi fexe maanaam bu fekkee nombre de électeurs bi nekk yi nekk ci biir commune bi. électoral bi. électoral bi bu fekkee dafa nekk dix mille wala mu nekk vingt mille bëgg naa bu fekkee dix mille dinaa bëgg naa ñu taxaw ci ba huit mille yi ndax tamit taux bi ni mu doon wàññee ni muy ni ñuy amee ay électeurs ak électeurs yi ni ñuy wàññeekoo maanaam ci wàllu du duñ génn duñ voté wu dara danoo sofontal wàllu commune parce que dañoo xamul woon li xew au fait mais tey jii dafa mel ni loolu bokk xew du xew ren ren du xew ndax li ma gis commune Pikine waan Pikine yeneen mhm. Mhm. waaye dugg naa ci commune Pikine Nord en masse mhm. la man moom wax dëgg yàlla chaque jour maa ngi dugg ci kër yi maa ngi dugg ci kër yi am na ñu ma ciy àndal di làqatu di ko def rek waaye dama bëgg bu demee rek ba dugg ci mois de décembre bi dinañ ko dinaa ko a yaatal dinaa ko gën a fësal ànd ak ay xale jigéen ànd ak ay góor ba defee ñu def sensibilisation boo xam ni dina am solo lool ba nit ñi mën a dem pour voter ji waaw loolu bëggoon naa ko trop te dinaa ko def te maa ngi ci rek commencé naa ko semaine passée hmm. man rek chaque jour rek bari na fu may dugg ñu ne ma leader sàngam duggoon na fii waaye ñu ngi lay xaar ñu ngi lay déglu waaye maa ngi wax du ma yàqal kenn rek waaye rek am naa droit su ma demee ba am fu ma far dinaa wane ni fii laa far hmm. waaye wax dëgg yàlla fu mu toll damaa nekk ci yoon boo xam ni Pikine ma ñor te ñu ngi ubbi suñuy rek di xool koo xam mën nañ ànd moom pour liggéey Pikine mais Ousseyn mën naa la laaj tey parce am na loo xam ne xam na tey liggéey bi ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci biir commune Pikine Nord mais doo ma wax ne ma tey Ousseyn ñoo ñëpp fi mu toll nii mënoo cee ànd kenn non ñoom euh, wax dëgg yàlla li nga wax nii mm-hmm. lu rafet rafetlu la ndax euh, màgget politique taxul ma xam Lamine danoo ñun ñëpp danoo juddandoo ñi nga nii mm-hmm. danoo yorandoo juddandoo bokk benn kar gi mm-hmm. lu rafet politique warul mën a yàq si suñuy diggante mm-hmm. donte bu nu àndul sax si yoon bu ñu nekk war na mun a rafet day rafet te day rafet sax man de sama côté day rafet ndax wax dëgg yàlla nit bu ma bu amee tur te tur bi mu am ameewu ko ci xaalis sama tur ak fa mu yegg sax est-ce que sama jëmm yegg na fa waaw ndax parce que defuma ci ñaar dërëm yàlla feeñal na ma donte bu ma amul xaalis yàlla feeñal na loolu waaye ñaar ñooñu nga tudd noonu su ma yewoon ni Maguette Thiandoum àndu yow di nga sama témoin nga ciy doon Maguette Thiandoum bi may ànd ak moom ci wàllu développement la moo woo la ma te wuusi woon naa ko ci bi ma bi ma demee ba xam sama deret politique da cee xaw a dama ko bëgg dama dawaat dellu RV pour politique hmm. Lamine rek li nga wax dëgg la du ma ko du ma ko dindi du ma ko dindi sama xarit la sama xarit la bu nag gis nga am na loo xam ni nit mën nga laalanteeg nit mm. waaye rek am na fu muy toll tamit non mais bañ a la mi ni dëkkatale leen laale moom ñuy wax rek tey boo gisee sa sëriñ mën nga nekk di dogane di def lu la neex mm. waaye boo gisee sa sëriñ da nga koy nuyu si jotul ko boo génnee bu la wanee gannaaw léegi mm. waaw nga nekkaat ci la nga nekkoon moomaat sa bopp mm-hmm. waaye rek ay nit ñoo xam ne lan nit ñu baax lan wax dëgg yàlla gisuma ci ñoom benn jafe-jafe boo xam ni tamit jàmm la quoi jàmm waaye li si des rek politique la. bu politique jotee damay dem ba politique. Hmm. waaye man bandi laa si politique su ma yoroo <laughs> waaw wax dëgg xaaral ne la bandi nga yow fi ne a def ba gars yi ne la bandi nga fi mu toll politique nga bëgg dafa dee ci sa direct moo tax mu demee noonu donc on en est tous conscients dinañ ci dinañ ci répondre. ba pare nag loo xam maa ngi la wax ci côté le maire. maire Amadou Diarra maire foofu dama ciy bëgg a wax. ndax hmm. dama koy yàqam. Hmm. ma bàyyi bàyyiloo xel euh, population pikinois yi. Mhm. population Pikine waa Pikine Nord. Mhm. Amadou Diarra. Mhm. képp koo xam ni. yaa ngi volonté wu pour di wax yaa ngi ànd ak moom du ma la wax lenn lu ñaaw lu ma la war a wax. waaye ngi lay wax lenn. jaraa ku ko ànd ku ànd ak moom intérêt personnel nga ànd ak moom. Diarra mënu la joxoñal joxoñal lenn lenn ci biir commune Pikine Nord pour mu liggéey. biir commune Pikine Nord amul dara lu fi jar a liggéey. mais nañ nañ ñu ko wan sama naataangoo bi toog gënuma ko dëkk ci commune bi. nan ni woon ni lii kat jaraa ko fi def ñun te pourtant Ousseyn Jara yow sa xarit la woon man loolu non Jara Jara xëy na coolee bari rek maa ngi moom offan dal bi ñuy bi ñuy dalante bi ñuy mbëkkante moo bari mhm. waaye Jara xarit bi du xarit bu man wax dëgg yàlla xarit bi sax daf may jaaxal <laughs> ndax xarit boo xam doo ko woo daja woo leen àndoo leen di tekkuñu dara mais seeti nga ko wala urti nga ci moom buntu wala dara non non Jara Jara bu toogee waxal yàlla yàlla rek tax muy wax hmm. musuma tax toog dem mairie ba am benn audience bu may def moom këram tamit noonu. kon tey jii gis nga yàlla dëgg la bëgg. dëgg boo ko waxul fii rek di nga ko wax fële. te jara amuma leen loo xam maa ko séq moom képp koo xam ne rek ànd nga ak moom sa intérêt personnel la tax nga ànd ak moom. waaye du intérêt commune Pikine Nord bii. mais bokk na ci fan yii tam dañ gisoon tamit fi mu ne benn coow lu ngeen fi amoon ba ñëw ñu gaañ la ci. tam loolu tam nu mu demee woon fi mu ne lan moo doxoon seen diggante tam au juste tam ci biir coow loolu. waaw coow loolu defe naa détermination bi ma ci amoon ci biir commune bi moo indi ñu gaañ mais dem na inscrire rek pour inscrire ci liste électorale parce que gis na gis nañ ni nit ñi doon doon nelaw ma yee leen ok ñu bëri doon doon nelaw xale yi matul bindu ma daw fëgg leen ñu daw bindu hmm. mag ñu matul bindu hmm. ma daw jàppale mag ñi nga xam ni sax dañ doon voté ci beneen commune ñu réalité commune hmm. ma ji ma leen yee di leen wax chaque instant ma ñu gis ma dajale mbooloo indi ñu wat bindu loolu dem ba xam ni ñii xam ni booy bi fu mu jëm ak ñun kat ndox buñ buñ saaganu ndox amu fa koñ daja na moom ma ah, maam koñ nan ma ñetti yoon yëpp muy échec ñaari échec troisième fois bi ñu bett ma dóor ma tabul <laughs> yi waaye rek ma ko dóor rek li ma waxoon démb rek laay waxat tey hmm. yàlla daa koy bàyyeel ndax lii ma lii sama xol laa ko tibbee. Mm-hmm. bari na loo xam nit ñi ñu ngi ma koy wax. ay da nga dafa baale ay mus na mus baale na jox nañ ko xaalis su ma joxee xaalis yàlla na yàlla ma yàlla yàlla yàlla. ma non loolu moom waxi waxi waxi yàqkat la ak waxi ñi nga xam ne bëgguñu dem. na ci euh, li nga xam ne bëggoon naa ko laaj parce na ko léegi Ousseynou junj na ko léegi mu mel ni tey ji bu ñuy xool langue politique bi plus particulièrement cette année ci ci ci élection locale yi nga xam dëgmal nañ ko dafa mel ni askan wi dañu gën a yeewu waxuma la yeewu askan bi waaye ndaw ñi ci boppam jeunesse bi ci boppam plus particulièrement dafa am benn jóg bu ñu jóg am benn taxawaay bu mature bu ñu taxawee ngir maanaam jël seen gox yi en charge ak seen propre maire parce que pratiquement booy xool li li li li ci biir gox yi ku ku fa dëkkul dunduloo ko mënoo ko xam te pour tey ji bu ñu koy xool on a pas mal de maires yoo xamante ne nii commune yi ñu diriger dëkkuñu fa détermination bi nga gis tey ci ndaw ñi ak ndaw ñi ni ñu ko jëlee en charge tey ban jàngat na ci am ak lan ci mën a. bon gis nga loolu nga wax ci ndaw yi. Hmm. muy engagement yi ñu jël. ci seen hmm. réew sax laay wax. du ma wax seen hmm. ci seen réew. gis taxawaay yi ñuy def léeg amee ni ndaw yi di jógee di taxaw. am rek loo xam ne daf koy jàngale. loolu mooy rogalaat ñëw ba ci suñu commune yi. parce que tey da nga gis ndaw lu war toll ci liggéey war a toll ci faj gàcce. am-am yàlla moo koy joxe. mais hmm. war nga mën a fexe bu organiser say ndaw ñu am xëy. Hmm. am ci lu ñuy yëngatu. surtout bu boobaa ndaw li dina tal laneen. Hmm. lu dul génn vraiment di sàllante xeer war a muy toj. loolu moo wàcc ba ci suñu communes yi. parce que gis benn commune comme suñu commune. ak yeneen i commune ndaw yoo xamante ni lenn lañuy liggéey boo xëyee sañse ba jekk baraaye dem kër maire bi toog. dem kër mère bi pa bari na fi. amuñu ambition wala lan la. ambition la am nañ ambition de. Hmm. mais yow mi jiitu yow mi yàlla dogal nga jiitu. Hmm. yàlla nu woowul ci dara quoi. yow la yàlla teg sa loxo boo ko yëgee boo ko yëgul. Hmm. benn mission boo xamante ni. c'est à accomplir. li la war mooy vraiment jàppale ndaw ñi. mooy jéem leen orienté. bu dee ndaw luy jàng nga jàppale ko. te bañ a rek yem ci. foo toog bu nit waxee nga ni noo diw maa fay jàngam diw maa ko fayal lii diw maa ko defal leen déedéet mais organiser loo xamante ni ndaw yi dinañ fa mën a jaar di mënal seen bopp ba mu ëllëgee non duñu ñu soxlaa yuuxu rek am ñu daw génn wàcc ci tali bi di xeex ñu bari ñu ngi koy def lu ñu am dong lañ bëgg mais du leneen parce que dañuy sonn tey ma gis sama commune ni tey ni fi yàlla dafa dogal commune boo dem ndaw yaa ngi fa bari mais rawatina sama commune day gis ndaw yoo xam ne booy xëy to da nga leen di romb mhm. fi ñu toog teg ataaya fa nga leen di romb booy wàccaat fa nga leen di fekkaat du seen ñàkk jot du seen ñàkk bëgg a liggéey léeg-léeg nga dégg ñu naan yoom ñooy xeeb liggéey déedéet benn ndaw xeebul liggéey mhm. parce que ñoom ñooy ñi ngi ci tali bi mhm. di ambulant ñu ngi fii nekk ci ployer ñu ngi fii nekk ci leneen. mënee bëriwul. mënee bëriwul mais yow maire bi nga xam ne yow la yàlla dénk sa budget mu néew mu bari. Mm-hmm. mais war nga cee mën a am xalaat bu dee nitu idée nga. war nga ci mën a am xalaat boo xamante ni sa ndaw yooyu di nga leen accompagner. Mm-hmm. ba vraiment du ñu am jotu toog. Mm-hmm. di teg ataaya lu dul dimanche. beneen bi ci des même ci jigéen ñi ah, da ngay gis. politiciens yu bari ni ñu koy defee. man mm-hmm. dañ koy wax même suñu coalition bi nga xamante ni mooy ànd liggéeyal sunu gox. Mm-hmm. non vraiment dañu ni duñu dem ci benn groupement. Mm-hmm. la proposer sa leget dañoo ñëw pour may la ci cent mille. déedéet non ñaata at politiciens yi nekkee ko ak jigéen ñi. seen leget maa ci dugal cent mille. pour cinq ans yi nga leen di fal dootoo leen gis. c'est bon maa ngi koy wax. li neel ci côté jeunesse bi muy ndaw ñi. boo jëm ba ci soxna yi kon ni ma ko waxee. moo tax ñun euh, concept bi ñu am ak doxalin bi ñu am muy euh, coalition ànd liggéeyal suñu gox bu seeti jigéen ñi mukk naan seen léget yi ñoo leen may 100000. loolu laneen la man na leen ko defal mais bu bokkul lëkk di ñëw di leen ko naxee. wala ñëw di leen ko tegal pour que ñu mën a ànd ak ñun. dañu koy def pour euh, dañu koy def pour buñ demoon ba koy def parce que suñuy sœur lañ. war nañ leen mën a jàppale ñu yëkkati as suut may leen. mais ni ñu doxee nii jëm ci élection yi ñu jëm mooy sensibiliser jigéen ñi seen groupement yi ñu fexe organiser wu ñoom mais gis nga am na noonu leen di jàppale seen organisation yooyu mais dootuñu soxla sax ci xaalis bi ñuy jëli ci ci banque bi après problème mu fay bi di ñëw di leen poser problème parce que jigéen ñu leen ñu jël ci banque yi seen seen groupement yi mais après dañuy mujj am ay problème mais mairie mm. mais ki fi nekk fekkoon am na xa mais ñun xalaat bi ñu am ni tey ni bi ñu dénkee mais ci biir budget boobu dinañ fexe ba même bu ci xaju dinañ ko wuti ba mu am benn fonds boo xam ne dëjee la pour femme groupement yi fexe leen a organiser loo xamante ni mairie bi dina teg benn fonds boo xam ne dina leen ko jàppale ñuy dem di liggéey sans intérêt te bu boobaa da leen jàppale beneen bi ci des sama commune rek ngay dugg doo fa fekk maison de la femme amu fi commune yu bari boo fa demee da ko fay fekk parce que ñu dañoo nekk acteur artisanat nekk élu chambre de métier. Mhm. yor fa commission étude ak recherche. Mhm. di dugg ci communes yu bari di teg ay jigéen. Mhm. di leen fekk ci seen maison de la femme yooyu ñuy liggéey. di transformer mais tey ñooñu ngay génn di dem foire di daje ak ñoom. mais yéene boobu am nañ ko ci suñu commune. mais tey mas naa toog ak ak ak ñi fi nekk. échanger ak ñoom ci non suñu commune bi amul maison de la femme liñ ma tontu mooy amuñu espace. amuñu suuf problème suuf lañ may wax. loolu ñàkk xam-xam la. <laughs> dëgg dëgg Pikine Nord amul suuf. amul suuf <laughs> non même bu dee amuñu suuf. Mm-hmm. d'accord nee nañu arène bi lañ ci def li ci des euh, dañ ko fa teg pour leneen leneen état nangul ñu kii. Mm-hmm. amuñu espace boobu. Mm-hmm. ma ni leen non man sama xalaat romb na foofu. mais ñaata kër ñoo nekk biir commune Pikine noor chaque jour boobu ñu dëgg ñu kër gale day jaay. waaw surface su Pikine Nord. 150 mètres carrés la kër yi. mais boo ko jëndee bu fekkee am nga am am nga xarañtewu yow. mën a développer sa commune. même bu nga ni budget bi mënu ko hmm. mais xanaa mérite xaaroo rek budget xalaat nga am ay partenaire xalaat nga am beneen yoon boo xam ne mën nga fa jaar mais pour jënd kër yooyu hmm. boo ci amee ñaari kër da ngay am maison de la femme am benn bibliothèque bu hmm. la neex sax nga dolli ci beneen ah, def ko maison de SONES xale yi am fu ñuy dajee mais tey pari foot yi xale yi boo dem léegi ñoom ñoo fa nekk jeunes yi parce que amuñu fenn foo xamante nii tey mën nañ fay ñëw di renforcer seen i étude muy bibliothèque yeneen yeneen yeneen ak yeneen yoo xam ne da leen koy équipé ñu mën fay da nekk di yokk seen xam-xam mais vraiment ñun yéene boobu lañ am ci Pikine Nord mm-hmm. même ci côté jeunesse bi tey mm-hmm. bu ñu génnee ci soxna yi nga xam ne am nañ programme boobu ci ñoom mm-hmm. ak jéem leen a gunge ñu formaliser seen lekket yooyu ba mën di financer seen bopp tey même ci côté jeunesse bi le mouvement dal am na benn programme boo xam ne daf ko am muy sunu kafe sunu café tey da ngay gis koñ boo dugg am na fréquentation ay jeunes yoo xam ne dañ fay nekk te defuñu dara c'est sûr mais organiser nga fexe groupe jeune bu ci nekk nga formaliser leen utal leen GIE. utal leen ay kayit. mais suñu café boobu day ñëw monter leen fa café boo xamante ni dañ li ko war a liggéey lépp dañuy ñëw indil leen. jox leen ci ay produit loo xam dina toll ci benn somme bi. tegal leen ko organiser leen loo xam ne xaalis dootul nekk ci poosu kenn. mais day am ci banque boo leen koy dugal mu am trois signataires yoo xam ne ñooy génn xa ñooy débouché boo leen soxlaa xaalis. un an bu ko jeunes yi defee mën a demal seen bopp mën a dimbalante ci seen biir te loolu bokk na ci defe naa ne tey ji loolu mën naa wàññi li nga xamante ne tey ji tam mooy violence bi ñu gis tey ci biir arène politique bi tey ji waaw parce que tey boo xoolee jeune bi nga fexe ba mu jàpp ci loolu mm-hmm. mais xaalis boobu tey mën nañu jeg jékki génn et eh mais Ablaye kaay cinquante mille ngi nii demal nga dem bal ba mm-hmm. ñun ñëpp léegi dañuy so yëre yi gën a baax léegi ci bal ba lay jógee mm-hmm. nga gis boo yoo xam ne vraiment kenn jàppalewul mais ñi am seen volonté jóg di yoo xam ne mën nañ ci cité ñu bëree mais tey loolu boo ko defee tey jàppalee ko jeunes yi ñu organiser wu ba mën a def dara mais vraiment di nga wàññi taux taux de chômage bi nga xamante ni moo am ci Pikine Nord te loolu mouvement dal comme national la yamul rek ci biir commune Pikine Nord dina tey tamit violence boobu ngay wax Sam non mu deñ parce que ki am jot mooy def violence mais amul jot doo ko def ci am jot mooy ànd ak responsable politique mu lay jañax mais damay joxe ni jeunes yi mm-hmm. euh, nañu nañu nañu nañu bañ kenn di leen def ay ay pitbull. Hmm. jeunesse bi. Hmm. maa ngi def appel boobu di ko ñaan. Hmm. bu benn jeune nangu. ñu lay def pitbull. mooy xaj yooyu nga xam ne dañuy màtte soxor <laughs> mais ndaw balaa ngay def politique utile métier da nga war am métier boo dem def politique. man damay nekk ci terrain ba une heure du matin deux heures mais fu neuf heures xëy naa. su ma wàccaatee door a dugg def ay activité politique. mais bu fekkee da bëgg yow jóg nii politique rek nga def sa vision moom rek ngay def di ànd ak responsable yoo xam tamit yow politique rek lañ copté mais vraiment benn pitbull lañ lay def ah, boo xamante ni pour pour dàq la ci kaw kenn ni la attaqué la après yéen yéen violence yi ngay violence yi daal di bëri après du mujj fenn fu jël jàpp di ko seet wala gaañ sa bopp voilà du mujj fenn macha allah am na solo appel boobu am na solo am na solo euh, projet boobu nag euh, ñu ngi koy wax suñu café boobu mais day ñëw dugg ci biir projet bi nga xamante ni moom la coalition ànd liggéeyal seen dafa bokk ci biir programme parce que dafa am ay parti ku ci nekk sa programme boobu nga am dañuy ñëw teg ko ci table yi moo tax ñu ni tey mënuñu fi toog di wax suñuy programme mais dinañ bu ñu demee ba loolu lépp mat incha allah ci bu ñu leen invité dinañ génne lépp teg te bu boobaa Pikine Nord dinañ xam ni vraiment candidat bi du candidat bi sax mais équipe bii ñu ñu proposé pour Pikine vraiment bu ñu ko joxee dinañu soqali suñu commune. ku ne sa commune soqali ko loolu nga bëgg ba tax na rek Ousseyn xam naa ne daal ñëw jeexal seeg yow ñu daal yëkkati jotaay bi euh, dégg li li li li Cheikh Chérif wax xam naa ne tey ay seex a ma seex moo moom dara du yomb mais dégg fii fii sëñ euh, Assane daane tey ji violence bi nga xam ne yaa ngi koy gis tey ci scène politique bi tey plus particulièrement ci biir parce que tey bokk na ci violence boobu moo juróon ba ba ba fi nga daanele woon léegi moo tax sax ma rebondiraat ci question boobu noonu tey nga jàpp ni lan moo mën a saafara violence boobu noonu tey jii. waaw ci côté violence bi. boo gisee ni benn instant. ci problème rek. def naa ci benn sortie fii. def naa si ko jëloon mbokk yoo hmm. euh, ci. ci yi am métti population bi. te balaa maa dugg ci loolu. damay lancer benn appel boo loo xam ni. ci ñi nga xam ni. dañuy xëccoo commune bi muy euh, ma tudd leen muy mel ni Sey Ndiaye bu mel ni madame Mbacke bu mel ni président Lamine Gueye mu mel ni euh, Mamadou Gaye bu bu yeewi mu mel ni euh, Mapenda Faye mu mel ni ndax jaraa sax du ma boole ndax jàpp naa ni dee na waaw ñooñu maa ngi lancé appel maanaam yii xew li xew nii ci commune bi nii nii di leen ñaan ci yàlla ba ku fi toog yàlla bul def bul def bu mu def li jaraa di def. ndax emploi euh, fictif yi danoo bëri. lu meer bi maire commune Pikine Nord li fi xew dafa ëpp. Mm-hmm. emploi fictif dafay bëri ci commune bi. lan mooy emploi fictif. maanaam emploi dafa nekk loo xam ne. nit dangay wax mu leer parce que fii moom fi la lépp di leer nit di fayeeku. Mm-hmm. te liggéeyu. te liggéeyu kon salaire am ba moom kon dañuy def. fictif fictif mooy maanaam ngay lekk lu poson rek. Ah. tamit euh, ñu gis tamit suñu biir ko yi ñu dimbali ñu ci quoi ci biir koñ yi. jaar ñaari oto jaarandoo da ngay taxaw fu sori bàyyi kenn génn ngay doon génn foofu kon boo dugg lu mu gàtt gàtt di fekk fukki gàtt nag juróom loolu c'est grave yooyu ñu ciy lancé appel boo xam ni ah ma ah, man de jàpp naa ni bu ñu doxalee ñu war a doxalee jaraa fi jóge maire commune Pikine Nord dina fi jógee xajal ñu waaye rek bu fekkee tamit. doxalu nu ko fa war a war a doxalee rek tamit liy métti nu kaw rek lay dalaat mm. loolu xam naa waju man nag ci côté violence mm. li may ci côté violence lenn lii kese la mooy dama ne woon dañ ciy def euh, point de presse bu doy wax ci ndax ay élection lañ jëm mm. ndax bakkanu doomu aadama du ay caaxaan te kenn waru ko foowee ndax parce que mun ñu ñu gëm ni problème mu sonk bi rek ay ay moor ñaata moor am te généralement moor yi am yëpp kenn kuy nekk ci terrain bi bay ba bakkanam di ci wadd deuxièmement ñu yàq ay bagage su mu lu mel ni osan yi lu mel ni euh, bitigu jàmbur yi ñoo xam ni te li may gën a naqari mooy ay doomu sénégal yi ñoo fay liggéey di fayoo ko di ko yóbbu seen njaboot yi ñu leen ñu ñëw ay ci ci ci ñàkk fayda ñuy ñëw di leen yàqal violence yi di am ñu ngi jëmaat ci ay élection maam bu leader yi nekkul ay nit hmm. ñu ñi nga xam ni ñooy askan bi topp seen gannaaw ñu nekk ay nit te xam ne bakkan ku ko ñàkk dootoo ko dootu yegg si wàll nanu fexe ñu jéem a fexe ñu def sensibilisation ma def sensibilisation bi may def maa ngi koy def ci nit ñi voté ji te dinaa ci def lu ma mën te dinaa fexe moyen bu ma ñàkk dinaa fexe nit euh, jaamu yàlla yi jàpp ci ba dinañ def sensibilisation boo xam ne population bi dinañ gën a yeew luy commune tamit gis nga yi di am yëpp ñàkk xam réalité vote votant vote yi moo waral des fois sax ñu lay ger di la jox ay weccit ngay dem di voté nit mais ger boobu. mais yooyu jeex na parce que ren lii ma gis nii moom. waaw ndax ndax enjeu bi ñu bi ci am nii. ndax ndax intérêt personnel mais kii woote intérêt personnel kooku goxam ko commune am ñoru ko. intérêt personnel bi ci maam ci nit ñi la njëkkee. Mhm. tey jii Assane day ñëw indi la argument yu leer naa tegal la. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. nga ni démb diw ñëw na fi ba mu fi ñëwee may na ma 5000 5000 mooy lan nit may la 10 000 20 000 30 000 ah may na ma ko kon waxu Assane du ma ko dégg. Hmm. waxu ma Bapenda du ma ko dégg wala waxu ah, Mamadou Gaye du ma ko dégg. Hmm. wala waxu Lamine Gueye du ko dégg. Hmm. loolu maanaam loolu dafa terre à terre nga nit da def loo xam ni ëllëgee ñëpp dinañ ci jariñu ñëpp sentir seen bopp wax wax dëgg yàlla ñoom leader yi yëpp bu nekk dégg naa la nga wax waaye ñun ay boromi xel lañ dofu ñu dina jàpp ñu. ay boromi xel lañ dofu ñu dina jàpp waaw ndax tey jii dama cee dox ay <laughs> xoolal dama cee dox ay kër. kër yi ma dugg yëpp. su ma ñëwee ñun ma sa gars yi jaar nañ fi bugguma sax di tudd turu kenn waaye dañ may wax sa gars yi jaar na fi waaye loo gis loo gis lan may wax man leen après dinaa ñëw ñu waxtaan te rek su may waxtaan rek wax dëgg yàlla Pikine Nord a tax may waxtaan du ma taxaw di wax di saaga nit du ma taxaw di wax nit lu ma ko war a wax waaye en tout cas bëgg naa jug force bu gën naa jóge loo xam ni sans violence lay doon bu ci nit gaañ loo xam ñu ngi koy sàq ci maire bi jóge fi bu ko saaga rek ndax parce que ba nii ñuy wax ak yow mooy maire commune ndax budget bu ñëwoon léegi encore ci loxoom lay tegu kon dañ ko jox war ma boobu mm-hmm. ba mu jóg mu jógee mm-hmm. moom tamit ki fi ki fi ñëwaat mm-hmm. mu jox ko war ma war ma yooyu ndax parce que ñoom taxaw nañ foo xam ni jàpp nañ ni maire bi moo ñu gën judd jàpp nañ ni maire bi moo ñu ëpp njàng jàpp nañ maire bi moo ñu lépp moo ñu ko ëppale te loolu amul gis nga ñii nii ñii fi nekk nii ay ñu am ay borom yi xam-xam lan ay borom ñoo xam ne la ku ne toog naa ak yow ku mel ni Maguette Thiandoum ku mel ni lamin wala ku mel ni Mapenda ku mel nii comme euh, Mamadou Gaye bu yeewi askan wi ku mel ni Guèye Ndiaye ñooñu ñëpp na maam ni may too nii may wax ak yow laa la kon tey jii man. dama lay wax rek lenn loo xam ni mooy nekk nekkaguma fenn dama doon faju su ma yowoon ni sama dernier def naa rendez-vous rek tey jii may wax ak yow rendez-vous fan kon yaa ngi waajal yoo xam ne daal fi ne lan nga ñëw ak doole ju bari déggoo ma la wax hmm. su ma ñëwee hmm. dina dina non am na nu may ñëw nu may ñëwee incha allahu rabbi waaw moo tax ma waxtu bi daf ñoo xaj li liñ fi ñu koy tënk rek mooy waaw euh, dañu bàyyi ñu jox ko moom mu jox ko message bi nga xam ne mooy message bi moo war a lancé plus particulièrement askan mi nga xamante ne tey jii ñoom ñoo war a génn jóg dem jël seeni xob voteel ki nga xam ne mooy ki leen doy boolewaale ko ak tàggatoo bi rek benn yoon incha allah rabi nasar. Euh, euh, euh, kontaan mais balaa may suma naataango bi lu mu wax sànq. marché bi nga xamante ni mooy. Oh, dañuy kontaan mais balaa may tàggatoo. suma naataango bi wax si ci marché dégg naa mu koy wax ni nañ fu nekk teg fa ay table bërki démb maa ngi dégg maire bi fi nekk euh, monsieur Amadou wax ni euh, tali bu mag bi di marché Zing wax ci li mu ciy wax yëpp ci marché bi niveau bi mu am milieu la boo xam ne commercial bi dox na moo tax banques yi ñëw fii moo tax lii ñëw fii moo tax lii am fii ñi nga xam te ni dañuy xëccoo ak man bëgg ma fi jëlee ñu seen pexe mooy jëlee ma fi pour jëlee leen fi yéen waa marché bi loolu mooy mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wax te ci biir wax bi mu koy wax rek xam nga nit dama koy wax toujours dama naan nit buy wax li am solo ci nit buy wax mooy nga déglu ko galañu kàddoom am na fu muy waxee ci biir jataay boobu muy def ba mu yàgg mu ni am ku mu gees ko damay politique naa leen woon maa leen dàq politique loolu man li ma ci jàngee mooy euh, euh, euh, ñi may waxal naa leen fexee nax population bi li ma ci jàngee mooy loolu muy wax ni dama leen a dàq politique daal nax nax population bi à travers ak waa marché bi pour maanaam benn voilà mu ñëwee ci ci ci marché bi nii ñi may xëccook man ko bëgg ma fi jëlee li ñu bëgg mooy bu ma fi jógee ñu dindi fi marché bi marché zinc mais man sama yéene mooy amoon naa fi benn marché 7 milliards li tax ma ci wax mooy dañu nekk ci benn coalition xëy na interpellé wu ma mais coalition bi ñu nekk ay responsable na ci koo ci tuuse rek keneen ki tamit dañu am droit day day taxaw mu wax ci mooy ma Penda Faye eh, bi nga xam moom lañ def suñu tête de liste tey Pikine boo leen amul marché wala amu leen marché bu ñu def 7 milliards dama ko doon def un plus 3 niveau bi tel niveau wax ba wax ni ñiy jaay seen njëriñ sax fay nekk aw moom dafa mën comédie dafa mën soo ah ñiy jaay ay ay ay ay ay xasum looroog yooyu jaaykatu garab traditionnel waaw yooyu yooyu sax dañ fay am place. <laughs> d' accord parce que tàmm nañ ko ci Amadou Diarra mooy day soo. mais vraiment waxtaankat la te bu bu waxee boo ko dee déglu boo dee bàyyi xel ci ay kàddoom rek mën na la mën na dugg sa biir maayen bi. mais loolu mu wax population ci ci Mapenda Faye tey moo leen xañ tey marché marché boobu nga xamante nii tey sant commercial bi nga xamante ni tey moom laa leen bëggoon a defal ci 7 milliards. non Mapenda xañu leen ko Mapenda dafa ànd pour xeex pour la ñu bëggoon ñoom mu bañ a sotti. parce que nit mënu fee nekk ay papaam nekkoon fi am fi ay ay magasin am bu dee ñaar ñett moom moo ko moom moom bu ko papaam di xëy na sa papa bu ko woon ci biir marché bi bu ko woon fanaan mais moom la nekk sansam mais tey boo indee benn marché ñu dama bëgg def benn R plus 3 mais bu fi amoon ñetti magasin dama lay jox benn loolu moo indi riposte bi loolu moo indi marché bi taxawul mais du ma pen da fay mm-hmm. loolu dafa dafa baax pour que ñu leeral ko beneen bi ci des marché bi ñun ay ouvrier la moom yërmande boobu moom ñun ci secteur informel la ñu nekk nekk ay artisan bëri ci ay commerçant yu ci nekk ci biir euh, coalition bi am ay délégué de marché yu ci nekk kon ñooñu seen xalaat nekkul mukk ci di fi jëlee marché bi mais lépp loo gis àdduna dañ koy organiser dañ koy organiser parce que ki toog di jaay tamit war na mën a am xelu ni man kat fii ma teg noo tey yàlla tere bu incident amoon ci koñ bi sappoor war fi dugg mm. mais du jàll balaa mooy sécuré fekk ñu mu doon dimbali si yàq seen i bakkan mais yooyu la ñu nañ ko organiser ba ki war a jaay toog jaay ki war a jàll jàll oto bi war a romb romb. te kenn du war a dox dox. Mhm. te kenn yàqal sa morom dara. tout à fait loolu la ñuy lancé. Mhm. ci commerçant yi nekk ci marché bi. Mhm. xam ni ma Mapenda Faye ak coalition ànd liggéeyal sunu gox. seen projet seen programme. mooy ay nitu métier lañ ay nitu borom xam-xam lañ yoo xamante ni def nañ seen étude xam nañ lan moo war a mën a tabax Pikine Nord lan moo war a mën a def Pikine Nord benn miroir boo xamante ni tey donc fu waay toll da nga koy dangay taxaw di ci seen sa bopp. macha allah parce que tey boulevard bi war na mën a rafet. Mm-hmm. teewul doo marchand yeeg ñëpp jaay tablier yi ñëpp jaay. parce que ki naan dinaa fexe ba ndaw ñi am ci lu ñu jàpp. Mm-hmm. mais vraiment doo kere chômage doo ñëw di daaj ay nit ñuy jaay. kon nit ñi ñuy waxal nañu am xel. Mm-hmm. ak dégg. beneen bi ci des cité waat nañu sunu beneen naataango. camarade bu nekk ci biir coalition bi muy Cheikhou Diène bi nga xam ne responsable la. dégg naa ko ci biir vidéo boobu waxaat na Cheikhou Diène dama ko joxoon fii marché moo doon tabax sama euh, euh, kii bi nekk ci biir benn saal bu mu fay tabax wax na sax ba ay tunnel ci biir kii bi xam moom li may wax dafay soo <laughs> fii xalaat naa def ko R plus benn tunnel boo xam ne maire bu jógee ci bureau day jaar ci pax mi dugg bureau yooyu yëpp seboo beau mm-hmm, baax na mm-hmm. mais tey Cheikhou Diène boobu muy wax vraiment nit doo bàyyi ba sa fin mandat mm-hmm. ngay génne yoo xamante ni vraiment pour du tënisal ay daru gor la wala di tënisal ay ay image yu nit ñoo xamante ni suba dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo taxaw pour pour viser ji pour viser pour pour pour ji ci seen i commune loolu vraiment du lu ñuy rafetlu beneen bi ci des euh, ñu koy tàggatoo rek mooy di di kontaan trop ci invitation bi ngeen ñu fi invité di wax population Pikine Nord dañu xippi seen i bët ñu xam ni adduna bi dafa dox te toogatul di ñu xaar ma koy wax aussi ndaw ñi vraiment dama cee waxtaan ak kenn ni ko mais sëñ bi dama bëgg ngeen jàpp mu ni ma non Amadou Diarra nangam commencé waxtaan di ko défendre ma ni ko man boo ma mënee convaincre ci lan mooy bilan wam bu mu def ci 12 ans yu mu fi nekk man ma ñëw ànd ak yow parce que loolu rek lañ bëgg dem toogi sama place liggéey ma am jotu dugg ci mais li ma wax mooy man de xam naa ni amul bilan mais nit ku nit ku yo yomb a gis la. <laughs> tàggatoo bi loolu ñu tënk ko beneen yoon. non ñu yaatal ko. parce que débat bu sori la loolu. du ma nit kuy waxantu. <laughs> Mm. wala may wax loo xam du dëgg ci man. Mm. je t'assure loolu la ma tontu. amul bilan mais nit ku boo ko bëggee gis gis ko. mais loolu laneen la généreux laneen la nit ki boo baaxul yow yaa ko teg sa bopp. c'est humain quoi loolu baax tamit ci loo moom aussi mm-hmm, surtout wax toujours ni loolu ngeen koy sante di ko ci gërëm mm-hmm. amaana mën nañ ko dénk tamit bañ ko def mm-hmm. mais du yëfam yëfu askan bi la budget askan bi la du entreprise bu mu koy jëlee du société am du magasin am mais bi la loo xam ne ñoom ñoo ko poteel mu yëkkati ko defaat ci commune bi ko ñu ngi woo commune Pikine Nord vraiment di leen wax ni projet bi ñu leen indil bu yaakaaru ay nit yoo xam ne sax dëkkatuñ ci commune bi ñu ngi dëkk hors commune mais fi la seen lépp nekk fi la ñu juddoo mm-hmm. seen njaboot fi la ñu nekk seen i bien ci la ñu nekk mais vraiment koo ci exposé projet bi mais vraiment day adhéré wu à 100 mm-hmm. ci ñëw pour ànd ci projet bi nga xam ne coalition ànd liggéeyal suñu gox moo ko teg mm-hmm. ñu jiital ci Mapenda Faye bi nga xamante ni tey vraiment gor la te aussi ma wax ci tuuti jeexal ko ci tàggatoo bi la mooy nit la koo xamante ni président Macky Sall daf ko woolu palais bi ñu tollee ci defar liste yi pour bu bàyyi candidat am dem. temps bi duñ ko may. mais daf ni ko président ñett yi ma fi parce que président ni ko loo gis ci àdduna mën nañu ratifier. mooy nangam wan ko ni ko mën ngeen fi téye li mën ngeen téye li bu doon ko amul ngor day téye génn bu génnee ñëw rek ni ànd naa waa ji parce que ñuy dem kenn yëgu ko. président bu la wóolu doo ko doo ko publicité. mais daf ni ko du poste ministre moo fi indi du directeur du PCA. li ma fi indi mooy dama wax commune Pikine Nord dinaa leen sàmmal sama ngor mooy commune Pikine Nord ñoo ma tànn damaa amul lu benn politicien amul ci territoire du Sénégal mooy ay ndaw defar 7000 t-shirt jël sonorisation indi lu ay 16 jël gramme bu jasineer bu rafet solal ma ni ma taxawal ni yaay sunu candidat mu ne ko président loolu kenn amu ko man rek maa ko am ko dama fas yéene ànd ak ñoom ci projet boobu ba jële fi Amadou Diarra toog macha allah bu dee nag Amadou jara bu àndool ak ñun du gañee ñun mën nañu gagné te duñu ànd ak moom kon ñu ngi woo population bi yëpp ñu ñëw ànd ak ñoom ci projet boo xamante ni macha allah di nuyu sama naataango bu baax solo bu baax a baax kaddu yu mujj yi message bi lan lay doon ñu man man li may tëjee hmm. lenn kese la mooy dañoo soxla hmm. te dafa jot ñu am maire buy wax dëgg hmm. maire boo xam lu mu wax dëgg maire boo xam ni du dig kër Serigne Babacar lu mel ni kër Serigne Babacar si. nga ñëw di fa diggee dem. taw kenn gisatu la. taxaw li li li ko wër ci ay ci maam ci wàllu presse ëpp na vingt. vingt yii di ay chute la ñuy ay télé la baam bu nekk baam koo mës a gis sax ñu ma nga foofu nga ñëw dig digga fa dig bu boo xam ni dix million nga digge ko fa digga fa lu ne taw dem foo dem digge fa ñu ngi ñaan ci yàlla ba maire yi war a ñëwaat ñu ban a mel ni maire bi fi nekk maire bi fi nekk man de maa ngi ñaan ci yàlla su heure bu ma julee maa ngi wax yàlla na Pikine Nord am maire boo xam ni wax dëgg rek lay def lu dul dëgg du ko wax te loolu dafa am solo ndax julli dëgg am na loo xam ne bu ko waxee dafay day accompli loolu kon soxla nañ façon maire boobu tamit euh, commune bi ñun ko moom du ñoo ko moom nañu gën a xeex nañu gën a ñafe pour wane ni commune bi suñu commune la bu kenn bàyyi man non leader yi ma gis nii ay leader yu dynamique laa gis ay leader yoo xam ne ñu mat lu ñu doon la ay leader yoo xam ne nag xoolal da leen ko jaral fajar la tëdd teel a yeewu chaque jour chaque instant ñoom ñëpp ku ci amoon looy liggéey rek arrêté nga sa liggéey ndax parce que commune bee la ñor loolu laa amoon loo xam ni am na yu bari yoo xam maa ngi ko denc rek damay bàyyi ba génnaat sorti ndax lii dawaa naa dama gëj a wax gëj wax bi tamit jàpp na ma quoi tamit waaye rek bu génnaatee dinañ gën a leeral. incha allah incha allah rabbi incha allah jërëjëf euh, mbokk internet yi nga xam ne yéen ñu doon teewlu ci jamono bi nga xamante ne rek ci suñu jotaay bi nga xam ne mooy les coulisses politiques dégg ngeen tey ñaari jeunes yi nga xamante ne ñoom lañ dalaloon wax dëgg yàlla fii ci biir Pikine tali bu mag ci biir jardin public bi doon waxtaane li nga xamante ni mooy nattu yi coono yi ak métier yi nga xam ne doomu aadama yi nga xam ne ñoo nekk ci biir commune bu Pikine Nord di dundee ñaar ñoo xamante ni ci biir gox boobu ci lañ bokk juddoo fa yeroo fa màggee fa kenn ku ci nekk tamit am yéene ci biir gox bi ndax sa kër papa nga fa wala sa kër yaay wala sa kër maam wala sa yëfu bopp mi ngi fa ñuy seetaan ñi nga xam ne ñoom la ñuy dénk suñu gox yi ñu ñu koy saax saaxel ñu ñu ci defal naka su noonu ne te loolee mel ni jeex na ci jamono ba tax na ñu dalaloon ci tey ki nga xamante ni mooy Assane ak ki nga xamante ni mooy Weuz kenn ku ci nekk itam am ci mouvement bu mu tënku dégg ngeen ko léegi euh, wax dëgg yàlla moo mouvement ànd liggéey liggéeyal sunu gox mu doon mouvement boo xamante ni tur bi wax dëgg yàlla war naa wuyu te méngoo yi tamit ak jëf ji nga xam ne wax ngeen ko fi ñaan nañu yàlla itam sama borom defal leen jàmm defal leen ndam tam ci li nga xam ne yéen commune bi bu fekkente ni gën na tamit ci commune bi waaye sama waa ji nga xam ne tam mooy Ouzin moom it dégg ngeen li mu wax mi ngi waaj te bu ñëwee dina fël ak doole joo xamante ni xool ci ñi nga xam ne ñoo fi samp seen i ndënd mu xool ka ca gën a day dool doy askan wi mu dem indi ji ak moom ndax moom ne na dara ñoo ko lolul gox bi ñu leen di jaajëfal bu baax baax di leen sant di gërëm di leen jox dig daje incha allahu rabbi beneen jotaay ak les coulisses politiques nee lañ altine ba àjjuma chaque jour dinañ ci dalal ñaari leader fas yéene ñoom yépp itam waajalee ko rek li nga xamante ne mooy élection locale yi nga xam ne mooy yu yii di ñëw incha allah rabbi dig ci beneen jotaay ak Salam Vision dans les coulisses politiques wasalaam